bii mooy premier visiteur mu dem France te nekk na aussi koo xam dañ koy doog a fal baax na aussi tamit mu toog saafoon te waxtaan ak moom ñu am si moom yaakaar et je pense que li am solo dëggantaan moom war na xam lan moo ko tax a jóg war nañ xam lan mooy intérêt Sénégal Sénégal ñëpp xam nañ ne France dafa yàgg nekk partenaire privilégié donc dëgg la ubbeeku nañu maintenant depuis jamonoy Abdoulaye Wade ubbeeku nañu ak waa Turquie ak golfe bi naar yi ah ubbeeku nañu maintenant ak waa Maroc et cetera mais loolu ça n'enlève en rien vraiment le partenariat privilégié bi nga xam nekk na suñu diggante avec la France donc tey ñu li ñuy xaar ci ñoom mooy que partenariat yi nga xam dafa daan am suñu diggante ak ñoom nañ ko gën a équilibré la nga xamante ne dafa daan am mooy li nga xamante ne dañ ko war a séddoo wala ñu bokk ko tey ñu siy xaar ñu ne Sénégal ay 5 pour cent lay am et que maintenant les pays occidentaux yi di am ay 95 pour cent cest que yooyu la ñu war a dakkal arrêté ko donc li ñuy soxla maintenant mu nekk des partenariats équilibrés yoo xamante ne ñoom dinañ si gis seen bopp mais Sénégal di si gis boppam je pense que foofu la wax ji nekk.